sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa le géant di Bawol Tapha Tine ak manager ba Mbay Cuun Tapha Tine ba fi Reug Reug doon dékk ca Iba Mar Diop moom Tapha Tine waxul waaye manager ba Mbay Cuun moo wax dellu siwaat na ca dékkante ba amoon ca Iba Mar Diop teg Reug Reug ca palaasam moom Mbay Cuun la mu xam le mooy Reug Reug defagu fi dara Reug Reug n'a rien fait pour mériter de croiser Tapha moom Reug Reug amul lenn lu mu fi def lu war a tax mu taseeg Tapha moom Reug bëgg mu xam palaasam ndax cuuj day xam lekkam xam ngeen ne combat Reug Reug Tapha moom Reug Reug damaa mu yem ci kudd ñu ko ci gayet Tapha Tine war a jàkkaarloog Sénégal yépp xam nañ ko nous ciblons Balla Gaye 2 Gris Lac de Guiers 2 et Bombardier ñeent ñooñu ñooy suñuy adversaire ñoom la ñu war a bëreel Balla Gaye 2 suñu diggante ak moom daa war a leer Gris Bordeaux dañoo war a jëflante Lac de Guiers 2 ba ci Bombardier dañoo war jëflante waaye ku taxaw bëgg a wax ni Reug Reug ak Tapha Tine la dangaa xamul làmb wala muy soxor Balla Gris Lac ak Bombardier ñooñee lañu soxla Bombardier ma Tapha soxla nag digganteem ak Eumeu Sène leer na mu ne Bombardier jox nañ ko 40 millions Eumeu Sène 60 millions journal na presque

ay noppam ay partenaires yu nekk ca Suisse ñoo fas yéene ànd ak moom teg ko loxo gunge ko partenaires yooyee ñoo bëgg jamaykee taxawal diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 le général de la Gambie nee na yemul rek ci Balla ak Boy Niang 2 ak Lac de bu ñu noppee bëgg na ko B52 Gris Bordeaux soxla na ko moom jamaykee commencé naa jokkoo ak staffu mbër yi ngir taxawal yi les combats bu dee la clarification diggante Lirou diggante Wouly baara taxawal naa ko bile combat ñu ngi ko jàpp le avril 2020 ca stade Jëmb Bakaaw bu nu jàllee ca diggante Siteu ak Papa Fabrice Alous lañ fay fekk mu jàngat combat ba jàngat lamb ji la mu xamle mooy ci wàllu xeex Papa Sow a des et de bons crochets combat boobee lam ca xamle mooy Siteu aura l'avantage de la jeunesse Siteu buy gagné combat bi doon gi mu doon xale moo koy gagnélew combat bi waaye bu ñu fàttali ne l'expérience de Papa Sow peut la gala ba ca ndangaan le 18 ba le 19 janvier ordinateur moo ko jël moom ordinateur moo finaaloog pakala de woon ko boppam bu dee ca terrain gaal gi ñoom amateurs yi dañoo boycotté gedd ñibbi ñenn ci amateurs yi la xew ca làmb ja moo leen metti ba ñu dem ñibbi fekke wuñu ba quart de final ba doon dox ci diggante Gora Sock ak Amady Aj dafa amul ay lënt-lënt boo leen xoolee ci taxawaay Gora Sock mat na Amady Aj ñaari nit waaye loolee moo waral amateur boycotté final ba ni commission ba la ñu def teguñ ko ci yoon gédd ñibbi la ñu def amul kenn ku ca fekke final ba jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah